mbokk yi safoo ITV jàngeen jëf di am mbégte di leen dalal euh, fii fas yéene waxtaani football ndaxte nag ñu ngi jëm ci li nga xam ne mooy 33e édition Coupe d'Afrique des Nations war am fële ci Cameroun te ku wax football wax Coupe d'Afrique des Nations wax gaynde te ku wax gaynde wax la tanière la tanière nag mooy fi ñu leen nar a dalal fii ci bërëb bii am ay gan yoo xam ne ku ci nekk gaynde la ci li muy yëngu ñu fas yéene waxtaan ak ñoom ci lu tolloog match de football waxtaan boo xam ne taakal yi dina jóg touche dina jóg paas yi yaakaar nañ ne dina rafet ak lépp ci biir ak but yu rafet ñu jeexale ko ak espoir bu bari ci li nga xam ne moom moo ñu yóbbu fële ca coupe fële ca kamarun ñu fas yéene dalal ki nga xam ne mooy suñu invité bu njëkk ma bàyyi leen ngeen découvrir ko. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. Mamoudou dalal jàmm. na def sant yàlla ku wax euh, Mamadou Ibra Kane wax ci football xëy na dina am ñu mu xaw a jaaxal. <laughs> waaye man mi liggéey ak yow xëy na du ma du ma jaaxal trop. ñu teg présentation bi nga seetaan ko d'abord balaa ñuy dem. ayca bisimilah. bu doonoon ab capitaine ci équipe nationale bi nga ne mat na la ñu ko doon doye day ñaq bay siit lamboo jikkoy gaynde di jëñax bal ba muy dem ca camp yow njiitu groupe E-Media Invest taskatu xibaar bi ñëpp di may nopp Mamadou Ibra Kane doon na ka nga xamante ni fépp fu mu yegg rek bokk na ci la ko gunge xadaram ak njàmbaarteem gu mat sëkk ci lépp loo xamante ni dugg na ci ndekete mi ngi woon ci tànki ñi ñi ràññee ci réewum Sénégal ci wàllu ko tàggat yaram ku ci mel ni Mamadou Taw Aliou Cissé ba ci sax ki nga xamante ni moom moo di Kara ngir cofeel gi mu am ci wàllu ko football tey nag xam ko lool bu baax a baax loolee doon ak kumpa gi nga xamante ni dana daal di dañ ci biir tàññeer bi ndax Mamadou Ibra Kane moo ci dugg si. présentation bi euh, lan nga ci euh, lan nga ci am comme kàddu. waaw maa ngi lay gërëm ci invitation bi nga tuddee ko la tanière ku tudd la tanière sa xel dem ci suñu équipe nationale. équipe nationale nag man ma ma yàgg ko bëgg wax ko sax daanaka niñ koy waxee euh, tautologie la ndaxte. défenseur sénégalais bu nek war sa équipe nationale football ak sa équipe nationale de manière générale ma di top football nek supporteru jaraf yàgg di déglu commentaire suñu mag Ablaye Diaw nek euh, référence tax sax ñun ci suñu journalisme rawatina euh, sport et plus particulièrement le football donc euh, li ma ciy teg rek mooy que ni effectivement li ma gis ci natal bi ci portrait bi loolu moo moo am je suis un passionné de foot un passionné de l'équipe nationale de football. football ak li nga xam ne ñooy média ñoo ànd football ak télé football ak lépp lu jëm ci wàllu média ñoo ànd suñu deuxième invité justement nekkul ci média dëgg la mais mi ngi liggéey ci beneen fànn mi ngi liggéey ci li nga xam ne moom la ñu woowee cinéma ak euh, production Pape Oumar Diop lañ koy woowee ñu dalal ko. aleykum salaam aleykum salaam ak Omar Diop ñu gën xam. na nga def Pod na nga def ça va. mon cher dalal jàmm. merci beaucoup. Pape Omar Diop suñu mënee seetaan eh, présentation bi dikkaat ci dikkaat ci waxtaan bi. ku gis sa xel dem ci série sénégalaise yi. dey Papa Omar Diop ku bëgg football la fans AC Milan pot ñu gën ko xamee noonu ci série et di def eh, souvent ay commentaire ci club italien bile yenn saa yi sax mu ànd cek xadar goo xamante ni eh, ñu ci bëri dañuy jàpp ne li muy wax dëppoowul ak li am Pot Pap omar Diop nekk itam ku bëgg équipe nationale bu Sénégal moom mi di joxe bu baax baax gis-gisam ci équipe bi na muy doxee yenn saa yi sax ñenn ñi jàpp ne def ci ak farlu gu li ni mel li koy firndeel di post boo xamante ni defoon na ko ci page Facebook am ginnaaw gaynde yi bi ñu futbalee ba noppi mbir yi demeewul noonu ñu ci bëri sax doon ko ŋàññi ci loole mu bindoon na. ci CAN 2017 bi moom Papa Oumar Diop ñu gën ko xam ci pot doon na animé benn émission ci réseau sociaux yi di waxtaan ci li nga xamante ni moom moo di compétition yi waaye ci ginnaaw gi ci la ko carrièreu producteur dap cinéma bi itam jël place bu ama am solo ci dundam. ba tax yu ci bëri du ci mën a àddu waaye tey jii moom lépp lañuy teg ci taabal ji. Papa Omar Diop xëy na ñu bëri ci euh, série yi lañ la xam ak jabar yu bari ci télé yi ñoom Marichou <laughs> ñoom Eva <laughs> mais man ci football laa la njëkk xamee. Euh, bu ñu waxee Pod wax ci lu jëm ci football ak présentation bi nga seetaan sa xel ci lan lay dem. waaw euh, bon d'abord li ma gën a neex mooy sama tacle bi ma doon tacler El parce que double ballon d'or donc soo tacler double ballon d'or ci double ballon d'or <laughs> voilà mais mais avant le bon dama lay nuyu di nuyu tamit euh, Mamadou Ibra Kane di nuyu tamit ñi nga xam ne ñu ngi seetaan bu baax di ci invitation bi. Mm. mais ci biir présentation bi da nga ci wax lu am solo CAN 2017 bi mooy fee bi amoon nonou je pense que suñu élimination la won contre Cameroun bon jour bobu ma agir comme un sénégalais lambda mais jour bobu dafa dafa am lu reuy lu lu lu ma en fait jour bobu la en fait nit ñi xam ma jour waratuma wax lu comme je le sens. Hmm. te dama doon gis ay commentaires nit ñi naan ki yow yamal ci théâtre bi da nga football bi. <laughs> commentaire yooyu dafa metti parce que man je me dis football sax xam que li parce que football man dama judd ci famille football sama yaay day seetaan football da supporter Arsenal bu mag exactement yow xam nga loolu di supporter Arsenal bu mag sama famille sama pap ba ci sama mam, ñi ko xamoon bu baax muy El Hadj Beskaay Diop nit ñi xamoon nañ ko depuis US Gorée donc moo jur sama pap donc tey man dama nekk ci famille football juddu si football yaroo ci football mais nag bon euh, comme ni ñu waxee rek destin moo lay yóbbu ci ci euh, ci ci ci production ma nekk ci mais kontaan naa ci présentation bi et franchement fidèlement ñu ko defee quoi. jërëjëf Pape Oumar suñu troisième invité nag. Mamadou Sànq yaa ngi wax ne supporteru Gia nga jaraaf nga woon plutôt. jaraaf ah supporteru crime de lèse-majesté. <laughs> rival bi supporteru jaraaf. <laughs> Ah. ak supporteru équipe nationale ku wax jaraaf wax équipe nationale. Hmm. wax ku mel ni Henri Camara. Henri hmm. Camara di légende jaraaf di légende équipe nationale mooy suñu troisième invité ñu dalal ko. Ah, loolu il faut ñu jóg. Hmm? salaam. Henri.

deuxième mi-temps bi ci biir marché bi mu ne c'est Henri qui marque la la deuxième bi dafa lakk français bu mu ju juum boobu tey moo ko may moo ko may ndam boobu. te ñun chaque sama petit frère bi Maurice moom mi ngi France dafa ne leen Henri ma dugal ñaar mais ñun gëmuñu ko moo tax bi Sénégal duré deux. Henri donc nekk koo xamante ni vraiment euh, ku ñu war a féliciter la et puis nekk footballeur des des records hein. Euh, record ci wàllu sélection c'est vrai munoon na am 100 yi ah sans rond mais ba graoul parce que xam nga équipe nationale def équipe nationale bu amul sang rek ko comme nous ko doon nationale, suñu borom lu mu def rek dañ ci nationale, parce que mom rek mo xam lu tax def ko mais benen record bi meilleur euh, buteur euh, équipe nationale Sénégal lolu am solo donc vraiment euh, Henri li ñuy félicitations bravo euh, maa ngi ko doon wax bravo pour le et merci pour le plaisir Bon xamante il nous l'a procuré moom que la génération 2002 d'emba finale Coupe d'Afrique ah xanaa li ma koy wax rek euh, Henri gars il faut ñu jël affaire bi hein? Ah, <laughs> Pon bi dal, il faut ñu jël ko et puis ñun ñun ñëpp ñu japp si yeen ñi nga xamanteni yéenay euh, tey les aînés ñoom Sadio Mané euh, ngeen won leen yoon wi quoi ah won leen yoon wi pour que ñu def plus que ce que yéen def ngeen ko déjà maanaam dem dem final ñoom ci seen bopp ñu def ñu def ko en en 2019 face à l'Algérie bon je pense que dañuy war a ñaan mais surtout farlu ah au-delà de ñaan mooy farlu gëm ko pour que vraiment enfin ñu mën a jël la Coupe d'Afrique. boobu dinañ ci dinañ ci delluwaat Pape Oumar. yow ñëpp Milan lañ la xame ah. fii nag ñaari waa jaraaf ñoo la seex senegal ban équipe nga fi supporter. <laughs> boo Sénégal moom man équipe nawetaan laa fi am. ay ah, see xam naa waaw parce que man ñun bon surtout ñun euh, bi ñuy nekk di si tànn football bi trop trop trop bon tout gars yi woon liggéeyam dañ doon dañ doon suivre quoi. donc dafa tombeek nawetaan bi ëpp doole. nawetaan bi ëpp doole waaw donc euh, période bi may bi may nekk di seetaan carrément donc ay see xam naa fa laa dëkk fa laa yaroo quoi donc ak si xam daal mbiru wërsëg mooy mooy période bi ñuy nekk di finaalu rek ak ñaari tali ñaari tali sonal quoi donc man plus waaw équipe nawetaan moom ma doon dem entraînement sax dama ko doon seetaan bu ma tardé donc man moom football fu nekk loo yóbbu football dem naa ñu gagné national 2007 ma dem ak équipe bi amoon ñoom xaari mu ci bëgg yooyu. exactement suñu góol bi voilà donc ñu gagné ba ñu gagné dañ leen demoon doon teeru donc vélo laa jël ba ñu leen di ñu ngi jógee si euh, Ziguinchor la ñu mhm. gagné ñu ñu leen doon xaar buntu Pikine dama dawal vélo ba buntu taxaw foofu di xaar équipe bi ñu ñëw ñu toog fii ñibbi ñu xam ne quoi. passion boobu moo la topp également ci Milan est-ce que am na beneen club booy supporter ci àdduna bi à part. Euh, non rek. parce que li tax euh, mhm. Henri sa carrière particulière bi le euh, nombre de clubs yi nga yi c'est assez impressionnant mhm. euh, carrière c'est une quinzaine de clubs Henri je pense que Neuchâtel peut-être ci ci yow a championnat suisse mhm. wax ci yow la si xel yi di dem Sedan même bu fekkee saalif Diaw ak Moussa Ndiaye également jaar nga fa ak ñoom bu ñuy wax Sedan automatiquement xel yu bëri day dem ci yow mais Henri club yooyu yëpp nga jaar bu sa carrière jeexee nan booy booy xoolaat un peu rétroviseur yi est-ce que même même euh, type d'émotion bi ngay am pour club bu ci nekk wala dafay am euh, gën a lante wala nan nan ngay dundee un peu après carrière bi par rapport à à ces clubs là nan yan nga ciy gën a suivre ak euh, ak yooyu waaw c'est vrai que yàlla dafa def nag club yi ma jaar dafa bëre mais euh, boo seetee signé bi premier contrat avec euh, Strasbourg je euh, France ñu abale ñu Suisse Neuchâtel. Neuchâtel je suis Suisse hein. après je après deux ans def Neuchâtel un an def. Grasshopper suis un an après Sedan Sedan tamit deux ans à fa donc euh, après cela dem dem euh, England bon foofu la xawa a après coupe du monde. waaw si euh, dem Wolverhampton la ñëk signé def un an après dem Celtic après nak xam nga rek dama amone ben manager bo xamantene ne businessman la won quoi mom té man bon ñi mi doon gérer tamit bon c'est l'intérêt rek nañ dal xol quoi té man xale laa woon jamono xawmon dara quoi. donc damay ñëw mu proposé ma ne ma am na benn équipe bu la soxla yokk nañ sa salaire donc bu ma déggee ni. <laughs> yokk nañ sa salaire te man bawal bawal laa man <laughs> ma daw <laughs> na ko acca lañ dem. buñ toogaatee un an mu ne ma est-ce que bu nga bougé ma ne ko waaw ah. mu ne ma waaw équipe bi pare na pour fay le temps loo si xalaat ma ne ko acca. loolu nag moo tax ma def club yu bëri yi de. Mm-hmm. sinon mënoon naa toog si benn club comme euh, Wigan bu mu fa demee toog naa fa benn deux ans. Son premier année mu dox ma nekk fa meilleur buteur 2006 affaire bi dox mais après deuxième année bi nag li tax ma changé dama dama dama amoon problème genou. Mhm. ma amee problème genou beneen coach ñëw andi ay joueur am si man ma dem West Ham ma dem West coach bi yóbbu ma fa. benn agent moom fa yóbbu ak benn dirigeant gars yi xam nga rek business. Mhm. moo tax ma ne joueur chaque fois conseil bi may jox sama rax yi joueur booy dem si benn équipe bu la coach bi bëggul bu musa dem erreur bi ma def moy dama dem euh, West Ham te coach bi andi am amna ay jouram ba paré mhm. c'est vrai que soxla na woon ben attaquant bu melni man parce que dafa amone ben attaquant bu bu bu amoon blessure bu bo xamantene ay 4 mois lay tok du jeu lay gars yi jël ma si goudi si bi ma signé coach bi woma ñu waxtaan affaire mais ni ma ñëwee xamna ni neexu quoi. Mm. ou tamit euh, peut-être. suma ma joué ay match ay 4 match lay don te xamna ñu mu doon dugal man ma leen man xamna lool té te xam nañ lool mais coach bi duma duggal dugal fan ngay musee gis jour dafa jàpp ne andiwu la japp mo fa nga affaire business musna hmm. mus na ma woo ma toog mu ne ma tay du la dugal mais xawma lutax lu <laughs> ki la lay wax ni mais bima démé nak ba marché affaire bi entraîneur la euh mu xaw affaire quoi hmm. allant daal le tour. je ne pas ça ban ma lay mais di expliquer di quoi. Je ma si gën vous metti ma si vous vous metti daf ma match vous def match bu bu baax joueur vous vous gars deuxième match bi mu vous ma ma foog vous vous daf may def titulaire xam nga ban vous ci groupe vous groupe tay dama lay teg si mais xawma ma lu tax commencé di expliquer affaire bi monsieur Maale moo ma dem bureau après match bi ma ko bëggatuma jouer pour bëggatuma jouer pour yow quoi. Mm. je préfère tok di entraîner ba saison bi jeex ma dellu Wigan parce que Wigan moma ma abalé woon te non la def. mais justement Pape euh yooyu yow da ngay suivre euh, football di ngay suivre joueur yi ka yoy bëri liñ lu muy dal joueur sénégalais yi euh, kii di bay Omar Niass. Mhm. amna xétu jafé jafé yoy ak mhm. euh, ki nga xamné moy euh, Ronald Koeman bi mu nekkee feulé ci Everton di ko da ko doon teg du ko bolé ci équipe bi bo yóbbu ko sax ci ci équipe U23 amu fa mhm. sax vestiaire amu fa sax casier ci vestiaire euh, ki di papi Djilo Bodji également demam Chelsea gis nañ ne ciow lu bari li ko andi li Henri di wax la le fait que ki di Mourinho il n'avait pas demandé laaju ko won pour mu ñew agent yi xëy na ñoo ba mu dem est-ce que loolu du andi un peu gestion ou carrière wu euh, suñu suñu sportif c'est vrai que yow yaa ngi liggéey ci beneen ci beneen aspect muy cinéma ak yooyu mais foofu tamit également dinañ gis ne am peut-être benn parallèle bu ñu mën def ci gestion carrière wu suñu star yi mu nekk ci cinéma mu nekk ci lële souvent dafay am da ngay gis kenn mu am un départ bu extraordinaire mais ci ay choix de carrière parce que du kii yooyu loolu loolu ban ban jàngat nga ci am un peu si oui euh, bon surtout que ah, bon je pense que actuellement. Euh, star, yi sax je veux dire, surtout ah, football bi au lieu mu mais ah, agent lay tu ku ci actuellement bon star la quoi d'ailleurs yor benn mais star en fait je nañ ay faits je xam je supporter de Milan bon man je Donnarumma mu Milan. dem PSG dem PSG Donnarumma jóge de Milan il est muy Milan déjà moo nekkoon joueur bi nga xamante ne c'était le mieux payé au Milan en tant que je nekk xale bu ndaw. ba signaloo ba signaloo frère am. ba signaloo frère am te comme ni nga wax waaw moom suy joué da ngay jël frère am te frère am day lenn du jouer frère am góol la te mom dafa né dafa bëgg nga jël frère am te frère am du joué moo nekkoon troisième góol xam nañu du fuwal benn match mais neen daf ko soxla quoi donc du coup caprice yëpp yu mu doon am Milan da ko doon nangul mais leen moo ma c'est-à-dire que tay ñu koy prolonger le contrat am gars proposé ko encore salaire ba 8 millions mais dafa préférer dem. Paris te nekkul fofu sax titulaire mais comme li Henri doon wax c'est-à-dire que ngay dem ci équipe te mais est-ce que tey jii nii jour boobu noonu est-ce que tey jii nii entraîneur bi nekk foofu noonu soxla na la parce que soo xoolee entraîneur ba ñëwee góolam la dugal donc jël Donnarumma teg ko banc donc ñuy dem des fois mu dugg des fois mu dugg et je pense que tey Donnarumma nekk gardien titulaire équipe bu ci mel nii comme euh, comme euh, comme équipe Italie mm-hmm. nekk meilleur joueur euh, euro bi en fait du logique muy toog banc du logique tey jii da foron goul mais comme li wax bon choix de carrière je pense que lolu c'est important ah si si si jour quoi. Mamadou mo am mo am ben wax bu commencer di ñëw régulièrement euh ñu gis né joueurs africains souvent dañuy japp né joxuñu len euh dayo bi nga xamné mom lañu wara am à l'international xëy li mujjé andi coow moy euh, li nga xamné moy trophée wu meilleur gardien du monde bi nga xamné euh, France Football di ben média euh, français mom mo tan ki nga xam ne rivalam en quelque sorte ki mu doon xëccool poste bi boole ko déjà ci trente meilleurs joueurs u monde bi mu mu nekk gardien ba pare ne leen dem leen ji également pour poste meilleur gar meilleur gardien bu boole ci Donnarumma ak Edouard Mendy ak ñeneen est-ce que yow ci ce, ce sa jàngat yow mi nekk expert ci wàllu communication ak yooyu est-ce que da nga euh, da nga jàpp ne euh, loolu dafay am ay billets d'avance euh, le fait que ñuy dawalee choix yi noonu euh, wala da nga japp ne peut-être africain yi dafa am ben ben déficit bu ñu am ci walu communication wala ci benen walu bu mu mën di doon. bala bobu tay mom ya nga match dans le match man ak Pod mi ngi doon wax léegi Donnarumma mu nek suñu gardien parce que parisien là aussi hein. <laughs> j'ai la supporté mais mais dina nek titulaire hein, parce que bo xolé quand même d'abord il est jeune comparé à Keylor Navas té temps yi bo xolé Keylor aussi matcham yi dafa dafa dafa doy waar quoi ah. mi ngi commencé def ay erreurs yu yu graaw je pense que euh, il a il a toutes ses chances nek nek nek titulaire mais li nga wax effectivement parfois do comprendre yenn logique yi quoi. ah vraiment lu misaal la te nu mu ko waxee surtout par rapport ak les jeunes footballeurs ñi nek ñi ñëw ci ginaawam war nañ ci bàyyi xel bu baax agent bu baax ñaareel bi def aussi les bons choix hein, parce que carrière footballeur dafa gàtt di nga toll ci sa diggu ndënd ñu lay xëccoo boo amul vraiment coaching bu baax ci wàllu agent euh, di nga def ay choix yoo xamante ni mën na sa carrière mais ci loolu lay xuus pour effectivement c'est vrai que xam nga le monde du sport d'abord la question du racisme lu am la kenn mënu ko weddi euh, ñaata joueur yoo xamante ni deru ñuul yi ñuy euh, euh, jéem a dàmm seen moral des cris de ceci ou de cela mais je pense que c'est c'est des jeunes qui sont très braves malgré euh, la l'adversité une double adversité d'ailleurs wala sax lu ko ëpp non seulement di nga jaakaarloog benn équipe nga bëgg koo gagné di ñafe mais ñaareel bi public bi nga xamante ni dañ la war a sax supporter gën la ñaax ñooy def loo xamante ni daf lay day dàmm sa moral d'abord pour man euh, ay jàmbaar lañu mais à côté de ça au-delà de njàmbaarte bi ak racisme bi nga xamante ni réalité la je pense que war nañu def effort ci wàllu marketing bi ci wàllu communication bi mais BNF man suis Paris la tey Messi mi ngi foofu mais si nous voulons objectivement Léo Messi ballon d'or bi mu am ren mënoon nañ ko jox quelqu'un comme Lewandowski wala wala wala wala Kenen, mais surtout Lewandowski même saison bu bu doy mais bon y a un critère mais Messi c'est Messi marketingu Messi dafa am doole. c'est toute une machine derrière. ah c'est toute une machine même gisoo Sadio Mané avant il am son son ballon d'or africain euh, saison bi ko juut jiitu munoon pas am Mounon am c'est après le commencer comprendre marketing bi am na un petit solo moom ci aussi parce que il faut aussi quelque part nga ait une bête de communication hein voilà Le lu am solo aujourd'hui carrière au football Henri peut témoigner euh, Pod mën témoigner Defena amna ay efforts yo xamanteni quand même suñu footballeur yi au-delà de effectivement li am ci biir euh, am na wàll bo xamanteni ni ñu gën gën cee bàyyi xel moy manam communication bi marketing bi pour vraiment ñu ñu ñu dem beaucoup plus loin parce que euh, pour man effectivement <laughs> quand on voit Edouard Mendy euh, tay gi à la limite ñu ignorer ko personne ne peut se l'expliquer. Euh, d'ailleurs, je crois que Ballon d'Or les gens vont être obligés de, revoir ça. Critères ak ñan ñoy ñan ñoy voter. Lolu yep c'est na euh, lu ñu wara mais pour man nañu nañu ñafé nañu xamné dal affaire bi personne ne va te servir ça sur un plateau d'argent.

mom lolou la japp ba mu ne il prend sur lui de ne pas voter hmm. Sénégal sur lu sur les 170 votants voix au Sénégal amu ci hmm. est-ce que yow en tant que journaliste japp nga ne euh, cet acte là bi mu posé est-ce que euh, c'est un acte qui peut se comprendre ndax acte bo xam dina am écho lay y wala wala erreur la ndaxte xëy peut-être ay points la yo xam forcément c'est des points en moins pour Edouard Mendy yow en tant que journaliste nan nga jàngatee cet acte là qu'il a posé Aliou Goloko bi nga tudd xamna ko bu baax rak la euh c' est un grand professionnel aussi yag ci ci football euh, def ay jéego Defena quelqu'un comme Aliou Goloko bu démé ba poser acte bobu, defena war nañ ko mën comprendre et pour moi dañ ko war a gën a joxe écho dañ ko war a gën écho pour ñu vraiment am un journaliste boo xamante ni dafa doon voté de manière régulière euh, bu gis ne affaire yi dafa am loo xamante ni lu ñuul fii li nekk li ñuul ci soow mi euh, def un acte de protestation mais justement euh, BNF c'est l'occasion pour que tous les journalistes comme yow mais au-delà du Sénégal les journalistes africains également élever la voix parce que euh, xam nga comme nous koy waxee ou lu mun a gisee noonu lay oowalee quoi faut ñu que nous respecter suñu je pense que journaliste sportif yi bu ñu ce seen nous boole ci baatu joueurs yi boole ci baatu entraîneurs yi boole ci supporters yi nous ci ay yenen canaux yenen relais yi nga xamante war nañ ko mëna am dans le monde du football des dirigeants africains aussi BNF les dirigeants africains war nañu war a gën a mën a yëkkati baat euh, bàyyi altoppe bi parce que man sincèrement digression lay def bu ma déggee ni que CAF d'accord na pour coupe du monde tous les deux ans à la limite c'est extraordinaire c'est quoi ça hein mais justement ces dirigeants là occasion bi nag la ñu saisir pour ne mais ça suffit waratul mën a continuer mais la meilleure réponse euh, sous le contrôle du footballeur madame Henri terrain bi terrain la meilleure réponse terrain bi Henri y euh, nañ une distinction individuelle souvent jouer joueur le football sport collectif là, moo en équipe au ëpp solo et tout mais vous nañ euh, souvent par contre malgré ce que wax noonu ci kaw yépp dayo une distinction individuelle il y a solo trop est-ce que day dem parfois. Euh, joueur bi nga xamné da ci am yaakaar bu ko gañewul mën na yàq saison euh, yow en tant que sportif ban ban en tant que sportif doon liggéey ci sport collectif ban importance le joueur yi di jox distinction individuelle yeeg notes yi ñu leen di jox ci journaux yeeg euh, distinction yi nga xamné mom la média yi di joxé ak instance yi. ah mais loolu dafa am dafa am solo si si carrière joueur bi bu dee da nga nekk si benn niveau quoi comme tey booy xëccoo pour nekk ay ballon d'or affaire yooyu da ngay dem benn instant <laughs> da ngay selfish quoi. doo ti tey pot fekkee yéen ñaar même bu dee ay gaañ ngeen ci biir xol bi yow doo bëgg pot jiitu la quoi donc loolu day des fois day andi day andi problème si si équipe man bon loolu dama ko mos a contre quoi mais bon si si si sport la bokk ah mënuñu si dara. ñu gis ne effectivement comme ni nga koy waxee am na benn période les gens ñu ngi doon wax lu bari ci diggante. Salah ak Sadio Mané par exemple. Mhm. nga xam c'était pratiquement les deux meilleurs joueurs africains. Mhm. bokk même club. war a di paasante pour Liverpool di gagner. mais mu dem ba ñëpp di seetlu ne Salah du paas mhm. Mané wala Mané du paas Salah ak yooyu. day dem ba am incidence ci euh, performance collective. bëgguma woon tudd seen tour ñoom ñaar mais fu may waxee li nga xam foofu la quoi. parce que day dem ba benn instant day yàqoon na équipe Liverpool Sadio benn instant dafa dem ba marché affaire yi ñu génne ko <laughs> benn jour mu jaxase foofu yëpp. Mm-hmm. saaga loo xam ne mosu ko def. Mm-hmm. nga xam ne kii sonn na ko parce que waa ji beneen sens faale ko woon moom boppam rek te boo buggee dëgg dëgg Sadio moo moo siwloo Salah moo ko doon paas mi dugal. Mm-hmm. mais Sadio mu demee ba comprendre lii moom ak waa ji. li muy def moom la kële ah, mu commencé retiré wu di xool boppam. parce que tey bu doon mën a moom ñoo bokk lu mu def laa koy def de yàgg naa bokk ak ay joueurs yoo xam dañu am caractère mais boo mu paas du ma la paas.

wax statistique. Mhm. statistique yi xëy na dafa dem ba léegi dafa jël benn euh, benn envergure ci football de sorte que. Mhm. Euh, daanaka ci la ñuy mesurer un peu performance nit. Mhm. dugal nga bii wala dugaloo sa match baax na wala baaxul. yow mi nga xam ne ci wàllu statistique par exemple Sénégal <coughs> mu am benn paradoxe Sénégal Henri moo jiitu ci nombre de sélection donc ci longévité moo jiitu nombre de buts Henri moo jiitu nombre de participations en CAN Henri moo nombre de buts en CAN Henri moo jiitu te dafa mel ni ndax di partagé constat bi mais dafa mel ni boo génnee ci mbedd mi. Mhm. di euh, joueur qui a marqué euh, imaginaire u sénégalais bi Boy wax le meilleur joueur ak affaire yoy. souvent nit si ci xel yi dinañ dinañ lim joueur yu bari peut-être Fatela. Mhm. les gens vont dire Bokandé ils vont dire El Diouf aujourd'hui il dit Sadio Mané Lolo, yow amul ben frustration bu muy bu muy bu muy def ci parce que quand même quand comme comme je l'ai dit vous nous présenter le parcours ci longévité bi ci régularité bi ci euh, résultat euh, c'est assez incroyable en fait. non c'est vrai li nga wax <clears throat> des fois c'est dans ay émission gars yi def seen classement wala wax lu leen mais bon du ma déranger quoi À un man dama nekk nit boo xamante euh, dama calme trop bëgguma dugg ci yenn détails mais xamna sama bop xamna sama bop xamna li li ma def defee Kinoshang <laughs> pour nga def ko di ku ko pour nga def ko nit pour nga def ko fo nga nek jàmbaar deug man xamna sama bop sama jaar-jaar équipe nationale dafa metti te fi mo yóbbu équipe nationale man xam ko parce que ñepp fofu lañ ma fekk. depuis première sélection bi en 99. ñëpp fa lañ ma fekk.

takk ñaari kii ci nopp yi takk loxo yi wa kii bi nekk booy bu waane mu nekk jour boo xam ne dafay fës ci terrain bu match bi démarré également par sa vitesse également par ses buts ak yooyu yëpp dafay fës mais bu match bi jeexee rek Henry dafay mel ni dafay disparaître lu lu lu waral euh, ñaari personnel yi boobu ci terrain bi ak bi ci bi ci biti euh, xam nga boo demee ba am yenn tour yi euh, foog nga xam nooy gérer ses images parce que man tey sama image bon macha allah quoi rafet na quoi

gars yi di ma fàtte des fois quoi mais nag di def émission yi de temps en temps daf ci baax comme ça gars yi di ma gisaat. justement ci euh, ci kan yooyu yëpp nga nga nga nga def 2000 hmm. euh, comme tu l'as dit yaa ngi ko bokk ak ñoom Omar Daaf Pape hmm. Malick Diop Moussa Ndiaye Assane Ndiaye Pape Ñoxor Fall ak yooyu Salif Keita ngeen dem quart de finale match bu match bu doy waar. Hmm. bëri euh, bëri bëri jaxasoo. Euh, match bi ñu joué foofu ca Surulere Surulere contre Nigeria, bañ doon wax ndax match bi dina yeggam du yegg. Euh, ban souvenir nga garder ci ci première participation ci kan boobu ak Peter Schnittger. Euh, premier premier match bi parce que premier match bi dafa nekkoon match boo xamante ne il fallait ñu ñëw ñu ñu bëri foogee ñun sax parce que jamono jooju kii nu mu tudd sax. Euh, équipe bi ñu doon dajal nu tuddi euh, Burkina dañ mm-hmm. nekkoon ci au top quoi mm-hmm. bon quand laaj doon da nga ne bon Sénégal day ñëw rek pour euh, présenter wu rek après voilà premier tour donc premier tour bi ñun premier match bi dañu dañu joxe dañu joxe li ñu am yëpp ma premier but. bi ñu 3 3 1 ou 3 0 nañu le, le, mujjee match bi donc mm-hmm. mu donne premier match boo xamante ne du mu ko sama carrière parce que sama premier match Coupe d'Afrique ma ñëw dugal premier but. bi donc si na say match match ma carrière Nous hmm. avons temps additionnel mi-temps 45 minutes hmm. euh, temps additionnel il am euh, surprise bu dit qu'il di euh, Oumar Il évoqué. Hmm. mu ak ñun di wax ak ñun ci a bi mu am ak yow. équipe nationale. Bim lay xam yow boobu xalaatul sax ne dina mos a football ci club Sénégal nii hmm. bay xalaatu football à l'étranger bay dugg équipe nationale boobu yéen a ngi am 16 ans. Hmm. di football fële nga xam ne mooy euh, terrain bi nga xam ne moo nekk euh, wetu rëbës. Hmm. Euh, Omar Daf lan ban relation nga nga am ak moom ci tout le long de de ce parcours là ngeen xaw a bokk également caractère un peu c'est quelqu'un de très effacé également. ci mu am également ay témoignages yu rafet yu mu def ci yow. dëgg la Omar bu mu koy xam 16 ans la ñu te lii tax ñu xamante sax dafa amoon benn benn waay bu ñu bëggoon yóbbu euh, euh, maanaam moom ñoo waroon dem ñu def test yi ba affaire yi jàll bon après man yàlla def ni xaw ma nag lan moo ko kale quoi mais yàlla def na ni man jotuma dem moom moo dem. Mm. donc euh, voilà noonu la xamante quoi après ay at après peut-être cinq ans après ñu daje équipe nationale xam comme li yàlla di def rek. bon depuis boobu nag ñu jàppante nekk ay ay vrai seex quoi parce que gaañ bu dafa calme du wax doo ko mos dégg si dara moom moo ne woon bàyyi faalu équipe bi donc bu gisee kenn ku ku mer sax moom moo lay ñëw dalal waxtaan ak yow franchement mu nekk nit bu baax ma koy ñaanal si carrière am bu mu nekk nii yàlla defal si ko jàmm ba un jour bon pourquoi pas ñëw yore équipe nationale jëlal ñu coupe ko quoi. ñu ngi ci en temps seen euh, match fii ci euh, La Tanière La Tanière euh, des Lions jëm nag ci li nga 33e édition Coupe d'Afrique des Nations war a am fële ci Cameroun ñu avons comme mi la nag ñu dem pause ngeen pause publicité yeeg yooyu noonu ñu dellu si waat ci ci plateau bi. bés bi le jour le nouveau quotidien du groupe Imedia Invest, se déploie sur 12 pages, dont 4 en couleur chatoyante, censées s'animer, serviront à affiner l'identité remarquable de Besby le jour. Votre nouveau quotidien se veut un creuset de signatures, une corbeille de créativité basée sur le professionnalisme et la rigueur. Les attentes du grand public sont nombreuses. Ce même grand public devient de plus en plus exigeant face aux dérives médiatiques pour ne plus accorder son crédit qu'avec parcimonie et circonspection Besbi le jour moi journal Boubès, le groupe Immedia Invest di Alarbabi. Alarbabi, bi saa yu ngeen Narte na ko information information bi day certification groupe IMEDIA Invest une information certifiée dans son nouveau quotidien Besbi le jour partout au Sénégal Besbi le jour du groupe Immedia Invest à 100 francs bés bi ñëw bés bés waajur ak ñi la jege am na solo lool boo bëggee jot ci li ngay wut te bañ a bàyyi dara fexe ba am mbooloo bu xam li ngay def di si dox tamit te di yokk saa su ne am na solo boo bëggee tekki waaye li gën a am solo mooy soobu ak li nga am te xam ne soo si sa des bés dina ñëw mu fekk si la yenn saay sa chance sàkkal sa nañu fexe ba yu ci ci sonatel Orange Digital Center sunu Wall, ci xarala yu bees ngir tekki avec vous pour vous Sonatel ngub jigéen ñi ci dunya jaaratullaay lobu gaz maam Diakha Bousso mi ngi liggéey ak ay partenaire am ay gros système ñi nga xamante ni euh, ñi ngi un peu partout au Sénégal ñoom ñi ngi format bouteille yëpp di ko jaay aussi am nañ ko mais profité aussi occasion bi dina remercier parce que lobu maam Diakha Bousso mënul dem sans ces grossistes en 2014 ñu changé parc distribution yu grossiste jox leen ay oto nii nii nii récemment rek joxaat nañ leen ay oto yu bees tàq ci côté fin 2020 bi pour que ñu mën a changé ñoom tamit seen parc automobile bi te amaat na yeneen aussi yu nekk en cours mi ngi ci euh, mi ngi ci parc lobu lobu Maam Jaara Bousso ñu ngi koy defar pareegul pour ñoom la ñoom ñoo ko moom pour mu permettre mu gën a gaaw a seen liggéey permettre aussi gën a la seen liggéey ci terrain bi Pour les fêtes, il n'y a rien de plus magique que de vivre de bons moments en famille. Alors rejoignez celle de Canal ⁇ et célébrons Noël ensemble. Pour vous accueillir, le décodeur est à 5000 francs d avec de nombreuses chaînes dont Canal ⁇ Pop. Ça sera la musique ou rien. C'est tout. De quoi rire. Nous avons un duel Afrique de l'Ouest, Afrique centrale. Dansez et enflammez vos soirées partager des moments forts, pleins de rebondissements. C'est grandiose Et même faire rêver les plus petits. Passage en vitesse, Mac Noël Tout est prêt pour qu'on profite de nous. Dans le ndaw nekk ci wutum liggéey sa at toll ci ñaar nga am taxawaay ta njaxlaf loolu lu mu gàtt-gàtt sa njàng yem ci ba bataaxal bi lay yow yaa ko moom la LONASE ci yeesal ak yaata li nga xam ne moo di réseau commercial am dafay tànn junni ak juróomi téeméer ci ay ndaw ngir bokk ci yomb na li nga xam ne moo di sa photocopie carte d'identité benn certificat de résidence benn casier judiciaire ak CV su mënee ne nga daal di koy déposer fi nga xam ne moo di direction générale de la voilà adresse mail bi ma lay bëgg a jox recrutement vendeur arrobase lonance point mën ngeen di wéy di déposer fii

l'épilogue de notre saison. Le meilleur du football européen revient à partir du 8 août sur les chaînes Canal Plus Sport. Avec en ce moment le décodeur HD à 1000 francs seulement. Abonnez-vous vite c'est la deuxième mi-temps ci euh, match bi ci euh, la euh, moment décisif li di 33e édition Coupe d'Afrique bi soreetul euh, ay fan rek moo ñu des euh, suñu digganteeg euh, Coupe d'Afrique bi nga xamné mo moo nar am fofu ci Cameroun Sénégal nak nara dal ci ville bi ñu wowe Bafoussam ñu demaloon foofu demaloo leen fofu il y a quelques semaines ci walu tirage au sort bi seetaan fa li fa li fa xewoon yépp mais Mamadou li ma lay njëkk laaj jëm ci Coupe d'Afrique bi Sénégal finalement ci lan la bloqué parce que Barina na édition yo xam dañuy japp ne Sénégal danaka peut-être mo fi gën équipe du mujj sori peut-être yow mi seetaan Caire 86 xeyna am nga ci am nga ci euh, regard 2002 euh, nam ñu bari ci aduna bi xaar ñu won Sénégal trop ñu dem final mais 2004 tout le monde se disait que l'équipe bi ñoroon na finale, na finale. ñoom Henry màgg nañ dem nañ Angleterre commencé yu donc rien ne s'opposait en réalité à ce que Sénégal dem def un pas de plus ñu au quart de finale 2017 ñu def premier tour ñëpp na Sénégal mom équipe bi moo mën ci tournoi bi parce que yenen équipe bi on les a regardés mais xon nañ faible touti Cameroun bi ñu jàppoon ne xëy na ci gënoon faible door ñu fële ci Gabon quart de finale finalement blocage bi ça surtout à quel niveau j'ai envie de demander. c'est difficile xam nga surtout bo nekkul ci terrain bi quoi. ah je pense que d'abord li ñu wara a def moy respecter joueur yi man gëm naa ni gëm naa ni pardon du question que ñom ci sen bop gëmuñu ko gëm nañ ko bëgg nañ ko. Euh, te na ay match yoo effectivement ñu gis vraiment euh, comme ni ko Henri doon ko waxee léegi dañuy dem ba jeex boo gisee seen def coupe du monde bi xam ku France nekk champion du monde buñ la waxee joueurs yi gëmuñu li def xam nga voilà xel mënu koo nangu 2002 euh, bi ñuy final contre le Cameroun on a vu le parcours Binidef def au Mali ba 2019 bi encore que 2019 bi sax Sénégal bon parcours le Bois ils n'ont pas eu des matchs difficiles difficiles difficiles il faut le dire en 2019 voilà on, dira ça comme ça malheureusement nous jouons contre Algérie je dis malheureusement parce que pour man Algérie moi, Coupe d'Afrique Bobo 2019 Si je suis lan moo tax ba je jëlaguñu coupe bi du ma aventuré wu di wax ci wax la technique tactique parce que nous sommes ñu ma gën xam côté Bobo mais pour le blocage puisque puisque question bi non nga pour man ci mental je me demande d'ailleurs si na Pod walla Henri wax est-ce que a préparation mentale un préparateur mental psychologique au sein de l'équipe nationale euh, parce que l'élève doit comprendre quoi de jouer contre des équipes yo xamante Si joueur par joueur il n'y a pas photo mais pourquoi à l'arrivée de nous gagner pourquoi c'est au dernier moment que nous craqué tu te souviens BNF à mon année suivre équipe nationale cinq dernières minutes yi match les cinq dernières minutes Voilà parfois ben touche Ben équipe action banale. banal <laughs> Ben équipe adverse am touche ils sont déconcentrés gars touche joueur comprendre donc pour moi il faut côté ait ñu ñu xool ko <clears throat> et le, sélectionneur je pense que Warnaham, je crois que c'est cela va de soi les points forts de ces joueurs mais aussi les points faibles Nous devons insister tout en capitalisant sur les points forts nous devons insister sur les points faibles point faible bi ma gis daal bi ma gis mooy le mental parce que bu dee football mën nañu football bu dee bëgg seen réew bëgg nañu seen réew mais lu tax il ne gagne pas à l'arrivée loolu war nañ ko xoolaat bu baax sinon ñaanuma ko yàlla ñaanuma ko yàlla mais sinon buñ ko deful surprise boobu itam la mauvaise surprise on risque de l'avoir et ce serait pas une bonne chose Mar, euh... Mamadou évoquait na tout à l'heure Cannes 2017 bi xam naa CAN boobu moom en travers de la gorge bataille parce que mom nga andi won sa benn fippu non sa coup de gueule bi nga defone bi la yobé ciow lu bari yépp. Euh j'ai envie de te poser la même question blocage bi fan la euh, lan nga japp né vraiment mo mo dess euh ci ci équipe bi dem jëli li nga xamné mom lañuy xaar ci ñom ba bon man déjà un ah, blocage bi may yaakaar ne moo njëkk ah, je pense que malchance chance ci par rapport ak souvent pays organisateurs yi ont tasanteel ci suñu ay parcours. ak arbitrage comme en 2006 par exemple. fa laa mais même même 2000. 2004 soo xoolee 2000. 2000 incident bi am fofu 2004 contre Tunisie mais 2006 man boobu moom gëna metti mais penalty boobu non ci Djoma ci Camara non loolu loolu man mënu ma comprendre ba légui lan mo tax sifflé le de hein. donc man pour déjà malchance contre pays pays pays organisateurs mais tamit mental bi tamit c'est en fait ça dit que la match on a l'impression que mais en fait mentalement peut-être une équipe qui a plus d'ascendant mhm. je pense que Daphne est dal souvent contre Cameroun je pense que contre Cameroun mais aussi tamit surtout le mu gën moi contre euh, contre Algérie bi en fait contre Algérie gars y a un ascendant psychologique Manam Taïdjini, bon gagné nañ premier match bi mhm. mais deuxième match bi man pour moi, gars yi bañ en fait mentalement man pour man suñu match la woon match retour bi en fait suñu match la woon gars on était là bon peut-être tamit malchance bi tamit bii bi nous mu njëkkee dugg mais un match boo xamante ne ñun ñoo teebal bi agir pare nañ si match bi quoi. bu détail bu ndaw bon du ma wax Aliou bon Aliou Cissé leen laay wax c'est un très bon coach parce que soo xoolee mi ngi def ay résultats mais des fois je me dis que dafa am benn caacaayu entraîneur bu koy manqué parce que man pour man match am Fumi fu muy dem parce que le mi ngi gis ci Benitez match am Fumi fu muy dem mais tactiquement da koy lijjanti ça veut dire qu'il fait des changements des xool di jéem par rapport ak euh, adversaire bi mais je pense que période boobu noonu yëpp entraîneur Algérie bi <laughs> bon mi ngi doon napp Aliou Cissé souvent classement day am mu teg classement bi la Cissé war a ça veut dire que c'est juste pour lui dire que jàng n'a la xam naa lan ngay football donc ben ascendant ci côté bobu non tamit bon je pense que mi ngi ci mais man comme par hasard ah, man gëm naa ne c'est la bonne année incha waaw bu gëm naa ne bii c'est la bonne année. bu Cameroun eh, waaw bu Cameroun gëm naa ne c'est la bonne année parce que dafa am benn tendance bu xaw a bu bu bu bu renversé wu. bon 2017 eh, bi li ci daloon bon comme par exemple ah sama kurgël boobu noonu li ma doon reproché en fait Sadio Mané c'était que mu jël ay responsabilités xam nga tey man loolu eh, expérience boobu dama ko def maanaam même ñun suñu milieu bi tey suñu defee film tey par exemple man su ma lu bax man dañuy critiquer day facile ñu critiquer ma wala su amé amee luma ma def facilement porte pot dañuy tudd pourquoi parce que je suis devant parce que je suis l'acteur principal après ngay comprendre c'est-à-dire que duñ la bal dara quand tu es devant duñ la bal dara de la motax tax ma defoon benn coup de gueule parce que je me disais que 2017 bi Sadio Mané il devait prendre ses responsabilités moom moy wara porter équipe bi et je pense que actuellement luma ma gis nii ci qualification da ngay sentir un Sadio Mané qui porte l'équipe mm-hmm match bu il est décisif et je pense que jël ascendant on a besoin de lui parce que des fois ça on dit coach coach coach mais taille quand je prends la France ba muy la coupe du monde ba muy la finale 2006 je prends que Zidane faut jël modèle jël équipe bi yóbbu ko c'était pas Domenech Zidane modèle jël ay responsabilités ne yóbbu e-, équipe euh, finale donc man pour man Sadio Mané su su su il ay responsabilités un gars qui est top derrière nous équipe bi soudée mu entente moi je pense que on peut on peut aller au bout quoi. Henri ça yu Sénégal toogee ñu yekk a yéen joueurs yi lu mel ni xeme euh, joueurs yi un nañ mental euh, joueurs yi xeexuñu parewuñu euh, entraîneur beeg yooyu noonu finalement yow à ton avis yow ak qui yi ñi nga xam génération yi ñëw après blocage bi fan la ak lan mo manqué pour ñu mottali li nga xam ne xëy na tuuti moo ci des bu fekkee tuuti ci des bien sûr lan moom manqué Sénégal comme euh, li ko pot ni ko pot waxee sànq peut-être chance la quoi parce que def nañ lépp dem nañ deux fois final dañuy ñaan bii di ñëw ñu demaat final gañe ko am chance gañe ko parce que tamit dafa metti nga nekk nga nekk sénégalais te munoo werante ak sa yeneen mbokk africains yi boo toogee Europe di wat werante ak ñoom dañ lay wax yéen gagné dara. looy wax yow xam nga ne yéen am ngeen équipe ñun am nañu équipe pour gagner mais lu ñu bloqué ñun xamuñu ko am na yoo xam nañu man je jaar naa équipe nationale donc li ma dund biir équipe nationale su ma ko waxee fii day day day traumatiser gars yi équipe nationale ngeen baal ma si wax mais dafa salte ah ci naka. dafa metti dafa metti en interne wala. ci biir équipe nationale. دفعم أي أثر يجي خاوي أو خمن تنا جوري بين مدة جنا يخم دريجان يخم نين دفع فوف نا يخم ندم كو نيمه مو كساخ ما نيم خم نين دين تجوري دين تجوري يك دريجان يي آه أثر يغراو دين كو يو يو دين كو ديتاي يو ينون دفع موني بلوك مش بري لوني دوا موي سوفان خوي joueur dañu mais <laughs> est ce que lu am la est ce que lu nit est ce que fantasme la est ce que du joueur mais dans quel dans quel intérêt par exemple. non suis na yow groupe bi ñu ñu ñu <laughs> ñu mais bëgg suis bëgg pot am genre détail détails. contre man joueur ñuy suis je ne pas yow nga am parce que bëgg comme nous mu mel rek day am équipe nationale man def ans équipe nationale mas nga dugg sa chambre fekk fa téere wala yu. musuma dugg musuma dugg mais match moom am na lu mbaxe ma jaxasoo ma xam ne tey man nekkuma. nga jàpp dañ leen ma jàpp ne man jàpp naa ni man tey man nekkuma équipe nationale. mais loolu mënul jógee ci ci adversaire yi par exemple. xam mais après yooyu yaay dem ak say mbokk rek defaruwaat ñëw xam nga mënoo jiin doomu jàmm te xamoo ni moom moo def dara mais da ngay jóg rek ak say mbokk parce que lu si ëpp nag nga baal ma mais si si si dirigeant yi lay jóge de.

wax bobu ak euh, ci li ñuy wax ci mm, ben euh, PC entre binationaux yi fi locaux yi fi ak yoyu mm-hmm. yow mi nga xam nek nga équipe nationale c'est vrai que période binational, binationaux yi wul won trop mais ñàkkul won ne amon na ay joueurs yo xam à l'époque ñu ngi doon joggé France am une culture européenne ñeu intégré équipe bi euh, loolu naka la ko joueurs yi entre ñom di dundé seen biir. ah mais ça ça ça dépend si bi nationaux bi nga xamante ne moom ay mboq fi <laughs> balaa muy ñëw gars yi koy defar bu dee amoo mboq moom boo ñëwee am dara de. <laughs> am dara bu dee am nga mboq. justement Sylvain ñu bëri dañ wax ne mboq Sylvain ñi dañ wax amul Sénégal. cousin mel pot. dana yóbbu si àll bi <laughs> ne la booy bul dof waaw booy bul kañ dem ma xew da ngay comme ça nga nekk nga nekk benn gaynde nga nekk benn vrai gaynde quoi ci terrain sinon boo toogee seetaan rek ni nga ñëwee noonu ngay ñibbi. mais nag mënoo xam kan la quoi. Mm-hmm. man du jiin kenn mënu la wax ni jour bii la mënoo mais xam naa ni équipe nationale tilim na tilim boo xamante ne boo jógul sa bopp.

est-ce que amna prise en charge psychologique Tibir équipe nationale. non est-ce que y vraiment une prise en charge. non parce que li muy wax que euh, euh, bon pour ne pas euh, faire comme semblant. dans c'est dans nos réalités. nga gëm ko ça fait partie de notre de notre construction mentale mais man fi ma bëggoon insister mooy bu jour bi demee ba amatul moral parce que tu te dis écoute am na ku ma ay affaire mm-hmm. war nañu mën a jël jour bi indiwaat ko xëccaat ko grand dawuma de man xam naa ay joueurs yoo xamante ne waaw looloo tax ñëw ñu ñëwaatuñu équipe parce que dañu jàpp seen boobu nii saa bu ñëwee équipe nationale dañuy gaañ. ñu bàyyi. waaw xam nga loolu moom kenn. te ay joueurs yu mag laa lay wax de noonu la ñu bàyyee seen carrière. non non boo ko waxee dañ lay jum parce que yow dund nga ko ci biir. ñun ay supporters lañu on entend des choses hein. ngay wax ni dañ koy dañ koy dégg. Euh, y a un match je pense je pense coupe du monde bi la woon. Euh, coupe yi ñëw <laughs> ñu sang leen ba seen ba seen yaram bi diis loolu yëpp dégg nañ ko fi bon mais au-delà de ça bu fekkente ne dañuy jéem a euh, raisonner de manière cartésienne maanaam en considérant que réalité la mais pour man il faut ñu dépasser loolu dépasser ko mooy xam nga euh, liy joué ci moral joueur moom bëri na mën na nekk xonjom yi mhm. mën na nekk la peur de se blesser mën na nekk euh, même parfois la peur de l'adversaire qui est en face nga jàpp yow ci sa bopp jakarlo Cameroun euh, gayne nga waye xëy peut-être Camerounais bi mo gëna nek nekk je ne sais pas mhm. comment ça ce qui se passe dans la tête du joueur mais pour man lolu warna am quand même benn prise en charge bo xamanteni biñu wara am ci biir équipe nationale pour joueurs yi nga xamanteni dañuy dem ba amatuñu euh, engagement xaw ragal wala yu mel ñu c'est le premier aspect mais le mental effectivement n'explique pas tout si on veut être honnête même si nous nekkul des spécialistes du football pour parler de de moi les potes doivent doon wax légui aussi lu am la match bu nek ak réalité di nga toll ci match effectivement le coach doit oser mm-hmm. il doit tenter des choses ci yenn euh, il a raison de rappeler le match contre l'Algérie euh, juste avant la finale en 2019 man j'estime euh, quand je le dis à l'endroit de l'UCC. Il sait que je le dis parce que je le pense, parce qu'il sait l'affection que je lui porte. Et c'est réciproque. Mais effectivement, pour moi, Aliou euh, a, manqué de vigilance qui bataille psychologique. Belle m'a dit, a fait des déclarations comme quoi, Dany final, Voilà. C'est aussi simple que ça. Hambobone entraîneur, tu ne réagis pas. Mm-hmm. Aussi, dis-toi comment tes joueurs vont le ressentir on est parti à ce match-là même bu fekkente ni bi ñu sur terrain bi effectivement on nañu loo à Algérie à part juste leur leur but qui est un but yachère <laughs> que personne n'a compris mais l'Algérie ce jour-là n'était pas rayonnante mais c'est comme si quelque part nous dans notre euh, tête là on considérait que final bi n'y a qu'un ko match bi n'y a nañ loolu ben la bi Henri euh, loolu aussi am dans un match il y a forcément un jour pour war a jël responsabilité mm-hmm. un ou plusieurs jours, mais surtout un jour. c'est-à-dire le leader technique mm-hmm. mais tu, as tu as contre la Suède à la Coupe du Monde euh, euh, Henri tu as été le leader technique ce jour-là mm-hmm. un autre match c'est El ou euh, Salif Diao ou euh, euh, Khalidou Fadiga. Mais il y a forcément à un moment donné quelqu'un qui prend ses responsabilités. Mhm. S'ils sont plusieurs, c'est encore mieux. Mais pour moi, loolu yëpp bokk na ci éléments yi nga mhm. pour moi, on a encore des blocages. mais Henri justement c'est vrai que l'aspect mental l'aspect psychologique il y a des gens qui di defante qui jouer ci lu mais au-delà de ça parce que loolu bu fekkee ci loolu lañuy ci bu fekkee loolu mënuñu ko dindi fi connaissant nos réalités xana dina am fenen fuñu jafandu surtout ci walu terrain bi euh, ñi ngi wax walu tactique walu technique ak yoyu bu né Sénégal ñu xol effectif ci Afrique yépp ñu né Sénégal ñoo fi gën effectif buñu né classement FIFA xaw depuis 2 ans et quelques ñoo fi jiitu. Euh, finalement war a am une explication également par rapport ak euh, lecture bi nga am ci dernière performance yi nga ak contre performance yi Sénégal am sur ces dernières années euh, pour yow quelle est la part également vois le tactique par rapport à li nga xamné moy équipe parce que li les gens disent oui équipe a d'autres disent non on gagne mais yow un peu ci position par rapport ak lecture tactique bi nga le joueur sur le terrain. xam nga euh, sénégalais même ñun temps bi ñu jouer dañ avons gagné ñu wax équipe bi gagné na mais sénégalais mais c'est vrai que ni équipe marché. mingi mingi mingi ngi mingi ngi jéem a mi na il y mois ben ben tactique bu mu len jéem essayer. andi trois <laughs> trois défenseurs yooyu affaire bi peut-être ni mu ko defee woon baaxul parce que boy boy boy boy euh, créer ben tactique da nga jël ces joueurs yi nga xamantene ne ñoo ëpp ñoo ëpp expérience ñom ngay essayer bu doxé nga duggal remplaçant ñu ñu égalé mais erreur bu mu def moy dafa jël remplaçant yi. essayé ak ñoom essayé ak ñoom tactique boobu affaire bi affaire bi doxul gars yi dal ci kawam te xaw na perte sax donc du ay dafa bëri ay erreurs yoo xam ne da koy def ma xaw ma ndax am na conseil yoo xam dañ koy est-ce que mi ngi dégg tamit. ah déet yow ñu gën a jege. pour mën wax non ma ko jege ma ko te bëgguma ko jege. ah lu tax non non non parewuma sax. man je préfère daal di toog boo leen amee loolu may laaj ma wax ci équipe bi jeex na mais di jege équipe nationale quoi. mais bu dara dara Henry en fait xel mënul nangou joueur bi nga xamné mo sélection mo but mo liñu wax non yépp mu baña am. lu non xamna fi ngay waxé mais dama vous di wax ak bo mom dina dégg li nga wax dina la dégg bu la nga wax ko mu dégg mu appliquer li nga def. Aliou Cissé du du len jox nop non joxul nop ñëpp. pourtant tu loolu ñi koy euh, wax ci joueur yi bari na koy mais xëy amna pourtant ay kenn euh, contre ko am ay Lamine diata ak ñom euh, Tony si ci entourage. xaw ma xaw est ce que ñoo doy nañ. mais ñi mu ñi wala wax ak moom dëgg est ce que mu ngi leen di jox nopp. mais lol comment ça se fait euh, Aliou Cissé capitaine équipe nationale bi gëna mémorable Henri Camara El Diouf Fadiga euh, Amdi Faye ñu bari buñ leen di dégg soit dañ leen di dégg effectivement ñu am un peu kaddu yi ngay am japp ne Henri Aliou soit du déglu wala du du len jox nop wala yoyu mu am également benen aspect ñeneen ño xamne ñu bari dañu téye sen euh, dañu téye sen làmmiñ un peu. Mhm. Euh, lan mo andi euh, cassure bobu entre entre yéen. bon comme li may wax rek mom peut-être mo mobile ubbil bunti bunti lolo rek mais xam nga équipe nationale moom ñun ak jaar-jaar buñ ci am. war nañu mun a di woo avant match ñuy waxtaan ak moom wax ko suñu xalaat mu jox ko si xalaatam dem. loolu la rek mais. gars yi amul problème ak benn amul problème ak kenn mais tamit foog boo jiit boo boo nekkee coach mu am ñoo xam dañ am jaar-jaar biir équipe nationale parce que soxlawuñu ñëw di liggéey quoi ak moom mais conseil dafa dafa am dafa am solo aussi koo xamante ne dafa am jaar-jaar comme ñun élage

Euh, euh, final nous avons ne woy dem final deux fois nous avons eu la chance non c'est fini coupe le dara. mais justement tu vois le tactique bi. Euh, au-delà de considération personnelle que bañ bañ a dégloonte bañ a waxante ci wàllu tactique bi yow lan nga jàpp ne mooy xëy peut-être équipe bi ci lan la war a stabiliser wu sur ses forces ak ci yan faiblesse la war a gommer pour gagner dans dans une meilleure position ah lol, mom, franchement question pour bi ma posé ni mon ma la si tontu trop damay bàyyi mu sedd non quoi nak. nag. Ah, Pape Oumar ci <laughs> aspect tactique bi. aspect tactique bi mom bon mon man ci côté boobu bon en fait daf may intéressé quoi bon parce que ci yenn man ci man peut-être des fois yenn choix joueurs yi des fois euh, bon. Je comprends comprendre problème du côté gauche depuis. côté gauche défense ou défense. côté gauche défense ne joueur mais quand même <laughs> mais quand même quand même en fait pourquoi bon benn jour bu nekk Allemagne bu may suivre temps parce que man actuellement maa ngi jéem a xool fan la fan latéral gauche fan la nekk ci. ah mais Saliou Cissé mais Saliou Cissé pourtant dafa mel ni mu commencé régulier ci ci dernièrement. Saliou Cissé. Mhm. latéral bu baax la. c'est xam nga gars yi ñoo ko yeb rek. mais boo seetee boo seetee match yu yëpp moo paas gars yi xam nga laa koy ñaan mu def na wuti bayil. <laughs> bayil na wuti bayil. parce que Salif euh, dafa mel ni une souffre en fait baax lay def dafa mel ni dafay match bu baax dafa mel ni gars yi dafa mel ni moom deful match quoi man pour man dafa mel ni une dugal exactement non loolu ci si d'accord non man ci ko delloo match yi nga xool yëpp mooy parce que ñu dugal parce que surtout euh, même match qualification yi passé yi mu joué ah non dafay def de bon match et li defoon erreur mooy offensivement dañuy gis ne léegi mi ngi commencé progresser. Mm. sant yaa ngi commencé àgg parce que sant yi des fois daan sant du àgg. mais mm. bon man je me dis pourquoi pas ñu tenter xool bon. Euh, Milanella <laughs> dëgg la tamit am nañ suñu jeu mais bon man quand j'ai vu franchement. Fodé Ballo-Touré waaw ballo ma xool ko ci yenn match franchement bu njëkk ba dama doon wax Ballo-Touré ba mu ñëwee dafa war a fubal parce que Milan lay football dafa war a fubal titulaire mais après bu comparer à yenn match je me suis dit bon franchement ça réussit un peu devant Madame. mais gis naa temps latéral gauche pour nekk Allemagne pour euh, Monaco bu Allemagne maa ngi koy je suivre du xool ay vidéo quoi peut-être qu'on nañ me tester. parce que man ne la en fait pourquoi je chercher après bon ben instant je me dis je vais me mais on a un très bon latéral gauche pour nekk équipe nationale mais Diallo de war football. kan Diallo PSG. Abdou Diallo Abdou Diallo football pourquoi pas lui? pourquoi lui jéem tante gauche ou le noonu on le met à gauche. comme latéral comme latéral gauche man je me dis tey Cheikhou dama koy plaider <laughs> peut-être quoi mais tey Cheikhou man je le vois comme si benn Bonucci wala benn ou lu ñu Lui, wax lu ñu mënti wax il fait de bons matchs il est régulier dans le football bon peut-être temps yii un am na match pour mu football mais lu mënti wax. Sa yu équipe nationale il fait de très bons matchs il se tue sur le terrain Moi, pour moi, moom moo accompagner Kalidou ci axe bi on a Abdou Diallo à gauche droite nice Bouna Sarr man doyna mo man pour man défense bobu nonu suñ ko suñ ko tegee mille gànn place am c'est assuré attaque bi ci ko amna ño ñoo mom soxlawul sax ngay ngay tuddu moy euh, Ismaïla Sarr ak euh, Sadio Mané bon pointe bi peut-être mom lañuy xol entre Djéju ak ki mais. Le gars de Marseille, Gay, man, il me plaît bien. Pourquoi pas Peut-être il va se faire une place. Pas Gay, ouais. Pape, Gay. Gay. Man, je l'aime bien. Mmh. Ouais. Peut-être il va se faire une place. Man, pour moi, actuellement, l'équipe bi am nañ ossature quoi. Bon, xamante ni mi ngi à dégager ou ay titulaires le leer. Mais man, côté yi rek, pour man daal. moi moi moo xaw tey sa xel quoi. waaw côté gauche bi. mais Mamadou justement tey euh, on parle d'ossature ak yooyu Euh, effectif bi wax nañu effectif Sénégal peut-être que na mën na ci effectif riche en Afrique Tay dit bo amone euh, vraiment un coup de cœur peut-être bo xamné joueur bo xamné xeyna nekul ci effectif actuel bi et que à mon cadre ou wala bo amone bat bi peut-être euh, à ton avis de nous donner un enrichir effectif Bonjour ban joueur lay question difficile <laughs> est-ce que bobu dinaa ci mën tontu un coup de cœur euh, c'est difficile à dire tu sais euh, Babacar moi je pense que chacun peut avoir son coup de cœur mais li ma gëm moy on est à moins d'un mois maintenant de, du coup d'envoi de la, de la canne. bu fekkente ni ba léegi on se cherche c'est pas la peine d'y aller mm-hmm. pour moi euh, faut ñu gëm ne joueurs yi la am li am ni il faut ñu gëm nous ñoom les ñu am man ma sama préoccupation moy les blessures. Hmm. te commencé nañ ci am. ñett déjà. Euh, euh, Crépin qui est out Crépin qui out. On a Kalidou qui est bon, qui n'est pas out, mais on ne sait pas ndax il sera vraiment en forme pour aider. Mhm. Parce qu'il va être plus ou moins convalescent parce que Henri mi ngi la chance effectivement la chance fait partie aussi de ce jeu-là qui est le football Nous avons chance Nous avons am blessé mhm. euh, l'autre chose moi l'état de forme je crois qu'il y a une chose j'ai fait souvent pour un joueur à quel moment là la plénitude de ma forme on voit des joueurs par exemple briller même même dans Champions League boo sétane yenn club bi di nga gis ñu am ben départ bu graw ñu ne woo oh, club bi d'ailleurs mon mon club le PSG souvent c'est ça le problème ils ont tendance à démarrer en trompe mais bu vers le mois de janvier février nga gis ñu commencé am jafé jafé et c'est à cet instant que les grands clubs qui ont l'expérience de la compétition monter en puissance c'est souvent le cas pour le Barça, même si c'est dommage quand on voit ce que le Barça est devenu aujourd'hui. C'est le cas du Real Madrid, mhm. c'est le cas même de Chelsea. Tu as vu quand ils sont, ils sont montés en puissance l'année dernière, mais finalement, nous le Kili. Est-ce que le Sénégal sera en forme au mois de janvier mhm. C'est à cet instant précis qu'il faudra avoir euh, une équipe vraiment qui, qui a des joueurs qui sont en, forme et qui est prête à, aborder la compétition. Euh, d'autant plus que, je le dis avec d'autant plus parfois de préoccupation, que l'élé, euh, tu as l'impression aussi que la logique des clubs et leurs intérêts ne coïncident pas avec la logique et les intérêts de l'équipe nationale. J'ai fait allusion à Sadio Mané comment les choses vont se passer au mois de juillet janvier excusez-moi janvier par exemple dernièrement déjà vous voyez parce que parfois tu, ne comprends pas l'entraîneur parce que tout simplement il a une logique il a ses intérêts à lui fait parfois même des déclarations que les gens peuvent euh, considérer comme maladroites fait que moi, j'ai une logique de fonctionner man pour moi, sincèrement euh, pour répondre à ta question, je n'ai pas de coup de cœur. <laughs> Si j'en ai un, c'est un coup de cœur pour l'équipe nationale, en disant que c'est, c'est le moment où jamais, en tout cas, si on le rate, on risque encore d'attendre très longtemps parce que on a aujourd'hui des joueurs qui sont arrivés à maturité. Sadio Mane euh, qu'est-ce que sera Sadio Mane dans deux ans, dans trois ans, dans quatre ans qu'on se pose la question Il y en a qui ont une carrière beaucoup parce que mhm. quand on voit encore Messi aujourd'hui sur le terrain ou Ronaldo sur le terrain, effectivement, on peut espérer qu'il soit encore en forme d'ici quelques, quelques deux ans, trois ans, peut-être maximum. Mais là, Sadio Mane, c'est le moment. C'est le moment. Henri, qui euh, es effectif bi fi euh, riche mais amna ñu bari tamit machallah Sénégal xëy dafa am réservoir bu am solo bo, xamné ne amna am dëkk yu ko amul. Mm-hmm. effectif bi fi nek est-ce que amna joueur bo xamné ne jotu cee nekk te jàpp nga ne peut-être euh, à ton avis waron na mëna nek un bon plus ci euh, ci renforcer équipe bi. Euh, kan la mun a non mais pour le moment gisuma kenn effectif bu baax la am nañu ba ay 30 jours yoo xamantene bon li ñu am bon Afrique kenn amu ko quoi bon mun naa wax sax si monde bi après Brésil Sénégal moo ëpp joueur si monde bi si kii boo jël quoi poste boo jël. ma am yàlla moo ñu ko defal quoi mais waaw vas-y. ma bëggoon am sa xalaat tamit ci joueur bu mel ni Ismaïla Sarr. Mhm. c'est vrai que style yi wute na ak yow. Mhm. mais am na lu bari li ngeen am en commun di jouer ci L vitesse bi euh peut-être légui de plus en plus mi ngi dougal mm-hmm. soko ko euh, doli soko euh, soo conseiller mu ci mu lo xamné ne mën améliorer son jeu ci yane aspect lay doon à ton avis. mu gëna <coughs> mu gëna liguey physique bi parce que dese na doli touti quoi. maanaam yokk doole yokk doole bi touti loolu lu koy andi musculation musculation bu bu bëree boxe da la kay jox tamit gainage bu bëree. parce que footballeur muy sportif boo amee doole biir lu neex ngay def man loolu moo ne woon sama fort gainage abdo loolu rek. mooy do mooy force bi moo lay jox doole. parce que équipe yi ma jaar yëpp des fois gars yi dañuy foog ne damay doppewu mais xamuñu woon sama fort laa la woon mooy lii doole biir boo ko amee rek c'est fini mun nga jouer quatre-vingt-dix minutes yoo xamante ne fii gars yi di sonn yooyu yaa ngi daw rek bu ñu comprendre nag dañuy yaakaar ne yaa ngi jël ay waaw mooy lu may génnage bi abdo affaire waaw gën a yokk kii yam rek ba pare di dugal ay but parce que attaquant lu laaj laaj ñu la dara lu dul comme moom poste bu muy joué comme man soit nga nga nekk soit nga paas gaa yi dugal wala nga dugal ko loolu la ñuy laaj mais lu ci ëpp booy but bi nañ <laughs> but bi nañ lay gën a laaj quoi donc attaquant moom égal but ko Pod mi ngi tudd sànq benn joueur Cheikhou Kouyaté. Mhm. Euh, parfois ñu gis ko ci milieu bi parfois ñu gis ko ci défense bi euh, yow euh, à ton avis fan moy fi nga xamné mo doon gën ci mom composition man ci défense bi laa ko gën gis. ci défense pourquoi xadar bi. gis naa bu né si défense bi si lay gën nekk à l'aise non sama boy la damay waxtana mom lu bëri mais xamna ni ci défense bi le mo ñu gënal sax ñun sénégal ñun équipe Sénégal bi ñi yor ni mu joué si défense bi moy gën quoi jël abib Diallo décalé ko yóbbu ko à gauche. à gauche ci digg bi nga don associé par exemple Gana ak kan comme on considère tous que Gana moy pièce maîtresse su défense milieu bi. Gana mun na mun na dem ak euh, boy Marseille bi. pap gay pap gay wala mun na dem tamit ak euh, mu damay fat turam oy te mu nek Aris. pap euh, pap Alioune Ndiaye Pape

mais pourtant depuis depuis 2019 bokkutul euh, en quelque sorte c'est vrai que am na benn passage boo xam périodes benn période dafa des euh, jouer ji fële ci euh, Arabie Saoudite te Aliou Cissé te une décision bu mu jëloon ne bu championnat européen du bokk équipe c'est vrai que depuis six mois il est revenu en, Europe, à voir Grèce, il a une très bonne saison actuellement d'ailleurs. Euh, effectivement, comme tu, comme tu, comme à ton avis, est-ce que le train n'est pas passé un peu pour, euh, pour moi Ouais, parce que bon, moi je pense que c'est très difficile parce que moment yep actuellement nous sommes à un mois ci kan bi moment encore pour le parce que bon du les ne sax testé parce que yàggoon na fi mais tay actuellement so xolé ay Pape Gueye yi ni ay jour yu bees la indi yo xamantene dañ dañuy ñëw rajouté wu ci milieu terrain boo xamante ne ngi naan ok est-ce que Gana day dama ak wala est-ce que Gana day dama ku ci mel ay Nampalis wala genre yooyu non donc là on a pas Gueye man j'ai bien aimé kérok rentrer bu mu def donc en plus dafa nekk jour boo xamante en fait physiquement dafa taxaw et puis njool na et puis amna na doole donc soo xoolee man je me dis que dina complémentaire bu baax a baax a baax ak euh, ak Ghana parce que Ghana par rapport ak style am quoi parce que milieu bi souvent dañuy soxla kunjool parce que tey nga am benn nampalis ak benn Ghana ci milieu bi gars suñu tëmbalee. gars yi waaw taay bi day kii. donc man pour man tey premier ballon yi foofu kii mën na dem à l'assaut mais su wàccee Ghana séddale quoi. Euh, Henri euh, beneen aspect bi sànq tudd na Nampalys beneen aspect bi également bi inquiète sénégalais yu bari moy peut-être xeyna temps de jeu wu yenn joueurs yi ñi nga xamné xeyna dañu nekk dans leur club duñu jouer est-ce que lolu mën na am influence ci sen rendement en équipe nationale. Ah mais lolu ça dépend rek si joueur quoi. quoi que mentalement tu es fort da ci ciy génn parce que man amoon ay période yo xamante ne Coupe d'Afrique xaw ban Coupe d'Afrique la woon sama sama équipe euh, West Ham bi ma doon wax sank.

coupe d' Afrique bi passé moo yore woon Sénégal si milieu bi. ndax style bi. mi ngi mi ngi Europe yani wo kenn ko xamantene euh mi ngi joué même championnat comme moy Pape Abdou Cissé tu vois donc munoo bañ a woo kooku logique la yox football laay wax kooku mënuñu ko mënuñu ko bañ a woo mënu nekk boo ko rek amna problème boy yi wo ni c'est vrai baax nañu mais amuguñu. mantale bi nga xamante ne war nañu mën a dem gagné coupe d'Afrique boo ñu bees yi may wax ni ñu bees voilà say seen biir bopp ay tubaab nañ ba léegi hmm. ay na ñu c'est vrai ñoom da di dugal de temps en temps ñu ñu xam tuuti ko mais booy Pape Alioune Ndiaye bi war na mun a bokk si group bi hmm. euh, Mamadou euh, tudd na ay joueurs ak yooyu au-delà de joueurs yi tudd nga staff sànq tout à l'heure Euh, wax ndax am na préparateur mental effectivement lu lu jaaxal ñu bari euh, ki nga xam ne mooy euh, Régis di entraîneur adjoint dafa nekk ci spécialité yam nee nañ préparateur mental la justement finalement est-ce que du beneen aspect bi plutôt ñoo xam ne xëy na ci wàllu technique ci wàllu tactique mën nañu renforcer Aliou Cissé est-ce que du xëy na loolu moo am défaillance tuuti quelque part également parce que comme on dit xel du doy te entourage équipe nationale buñ ko xoolee Régis Bogart moi, son entraîneur adjoint profil ou préparateur mental en plus tôt. Lamine Diata, c'est le team manager de de de l'équipe, Nekoul euh, euh, entraîneur euh, Tony Silva entraîneur des gardiens là. c'est le staff médical ak ak est ce que vous le quelque part également. oui il y a une pièce qui manque. Je crois que Aliou Cissé gagnerait à être plus ouvert. quand j'ai entendu tout à l'heure Henri dire, effectivement, je me dis que euh, tout en nangul Aliou Cissé sélectionneur tout en ne remettant pas en cause ce qu'il donne à l'autorité, parce que c'est important de respecter ça, mais je pense que lui-même a intérêt à s'ouvrir davantage. Parce que bon, ses relations avec quelqu'un comme Elad étaient très très compliquées. Hein? Euh, était très compliquées à un moment donné. Mais je pense que euh, ils ont fini par se parler, finalement, voilà. Aujourd'hui, El même Bouffé Kenteni, il a des critiques du Mouidef. Je crois qu'il arrive à composer avec Aliou. Mais qui peut le plus peut le moins je pense que tempérament Henri n'y ne xam du quoi il fait des vagues war nañu mais en plus de ça li nga effectivement je pense que au plan euh, technique il c'est war na un peu plus d'ouverture même si la décision finale de toute façon un entraîneur c'est ça son destin quand l'équipe marche euh, ñu un entraîneur bi la bu ni équipe aussi on, dira que entraîneur bi je pense que Lolo, pour Mandal, daal euh, wax dëgg quand kan bi ñu une occasion de def introspection lan depuis des années et des années wax nga 86 en 1986 alors qu'on avait la meilleure équipe sur le papier quand tu évoques même les noms mais à la limite euh, Benin affaire hein? les les Boy Bandi Omar Geisen, Bokande Youm Lokot tu ci tudd tu as des frissons pourquoi on n'a pas gagné en 80 même en 90 en Algérie Dor Cameroun 2-0 c'était un match mais à la limite euh, parfait qu'on a, fait mais à l'arrivée on n'est pas passé en 2004 Henri contre la, Tunisie c'est vrai il y a le brouillard mais le brouillard était là pour tout le monde pour les deux équipes <laughs> le brouillard était là pour tout le monde euh, en 2017 Mamadou Koumé dans son livre La saga de l'équipe nationale il, pense même que 2017 le ñu que pareil en 2019 mais malgré tout 2019 on, est allé en finale donc faisons l'introspection mais de manière sérieuse lan nous doxul ñu les différents aspects surtout aspect l'aspect technique l'aspect mental nous gën koo renforcer Bon, et puis l'Équipe c'est une question de 11 contre 11 qui terrain quoi. une question de 11 contre 11 Nous ngi ci temps additionnel c'est une émission bi la tanière ci temps additionnel également on a quelques petites euh, surprises Nous avons un ak yéen ki nga xam ne li ñuy njëkkee mooy euh, ki nga pour Pape Omar Diop euh, Idrissa Faye sur mot ko ça t'évoque quelque chose. oui bien sûr c'est mon cousin. on a vécu ensemble depuis plus de 10 ans. Hein ah oui quelqu'un été euh, Idrissa Gana justement di liggéey ak moi. exactement euh, mu am benn témoignage bu mu def ci yow ñu côté de nous. Salam alaikum Babacar j'espère que Yanti ngi ci Euh, bon comme ni nga ko je vais vous vidéo bi pour raconter une anecdote euh, ci pod bon ce qu'il faut savoir mooy pod dafa dof dans ci football mais su ma la nee dof mais vraiment dof dof quoi c'est-à-dire que moi, nit je xam il est prêt à faire euh, tout et n'importe quoi pour euh, pour son Milan et, et pour et pour l'équipe nationale du, du Sénégal. Ben anecdote bu moi marqué ci pod ben euh, benn jour au corps. il faut savoir que bon pod dafa dafa tàmmoon chaque fois saa eu Milan défait ben recrue rek wala ben jour Milan su defee woon ben match te jékki-jékki rek ne le waaye si non Pato c'est la révélation qui monte d'accord football ci àddina bi dugg na fii génn fii

ça c'est le truc qui nous qui vraiment marqué quoi cette capacité à ce qu'il a de croire que tout ce que Milan fait tout ce que Milan recrute comme euh, comme joueur c'est et, ce qui se fait de meilleur dans le monde donc voilà nous nous, nous quoi allez pas Andiamo ragazze. Ancora si vince. Alors Pod, Thiago Silva est toujours le meilleur défenseur au monde ba ma wax <laughs> euh. ken xamul won Thiago Silva c'est que affaire bobu loolu won, xam nga ban année la loolu c'était en 2011 ma taxaw di ne bobu il y a 10 ans imaginez il y a 10 ans gars yi won Thiago Silva Mané Thiago Silva c'est le meilleur joueur au monde xam nga gars yi défenseur mané waxuma sa défenseur c'est le meilleur joueur au monde gars yi na dafa gedd xëdd bi mu gedd mais actuellement ba Paris parce que parisien la la soog xam valeur <laughs> donc yow ko avant quoi. <laughs> deuxième témoignage qui ak euh, Mahmoud Gueye euh, Mahmoud Gueye euh, xam dina am évoqué Henri Camara muy euh, ben xalé bu nek euh, ndaw bu nek feulé ci France actuellement di def ay études en journalisme ñu seetaan ko te te ñëw. waaw wax ci Henri Camara nag lu may sawar la parce que sama sama grand bu baax la déjà en 2002 rek ndawloo na ma tëbloo na ma defloo na lu nek Sénégal surtout mom amul kenn ku koy fàtte ci ci sénégalais. après ma dem nak ba mag màgg xamanteeg moom bi ma xamanteeg moom yàggul noonu euh, parce que dafa am sama benn grand bu amul kan dafa nekkoon si benn projet bu tudd Sénégal une histoire de de Lyon documentaire boo xam ne dañ koy jagleel euh, équipe nationale Sénégal léegi mu waxoon ma ne dafa bëgg interviewer Henry si si euh, documentaire bi après nag si laa jaar si copain bi Lay Diagne moom moo ñu boole ñu def rencontre man moom ak Amadou Kane maa moom nag foofu lañ jaaree xamante boobu depuis boobu nag ba léegi bàyyante wuñu su lu am si këram daf may woo man tamit lépp lu ma am lépp lu may dugg dama koy woo laaj ko avion moom tamit même chose man daf ma jox respect boo xam ne man mi sax daf ma daf ma jaaxal lépp lu muy dugg lu mu ndaw ndaw dina ma woo ne ma waaw Mahmoud loo xalaat ci lii lii ak lii ak noonu man daal yaatuwaayam daal lu ma lu ma marqué la parce que man dama doon dem ba benn instant ba doon posé ay question dama doon wax mais Henry moom jullit parce que Henry ndo même daf may invité ay ndogu këram ay euh, événement su amee ay tabaski day day da koy feete Noël da koy feete moom lépp moom moom dafa yaatu daal day jékki-jékki nii rek woo copain bi ñëw daje gàlle mu teg ataaya bi waxtaan et yaatuwaayam bokk na si lu ma lu ma gën a marqué daal macha allah gudd fan ak wér ak lépp li ngay bëgg si euh, si sa après carrière bi yàlla la ko yàlla yombalal. jërëjëf. Henri Bil Mahmoud gay di rakk ci man également xale bu ma naw loolu bi nga seetaanee un peu témoignage bi lan nga ñu mën a ci lan nga ñu si mën a wax. moom moom dafa yarul trop. moo tax ma bëggal ko sama bopp xam man moom gaaw ma dugg nit mais qualité yu ma gis moom moo tax. ma japp ko def ko rak mais li ma wax yëpp dafa am day ñëw sama kër dama koy invité mais nag <laughs> pour pour pour xamal sénégalais yi rek man catholique la mais damay dama dama dañu am famille boo xamante ne ñun suñu famille catholique ak musulman yi doon xàmme sama yaay julit la sama papa catholique la sama nijaay yëpp ay sama tante yi ñëpp ay julit julit yi daal ñoo ëpp quoi donc chaque chaque fête d'un koy d'un koy fête oui, Noël Kabaski, Korité donc ñu bëri xamuñu ne man. ni hmm. kat ñu bëri dañ jàpp ne jullit là quoi. Ah, mais peut-être un jour dinaa tuub on sait jamais parce que si mal. si mal la bokk. <laughs> yaa andi problème de <laughs> loolu moom si mal le bokk xam un jour dina ñëw moom waaw bu ma tuubee bu mu bête kenn quoi mais dal mu nek boy bo xamantene ne maa koy ci carrière journaliste bu mu dugg yalla defal ko ci jàmm mu mu nekk parmi les meilleurs journalistes comme sama grand bi nu mu ko nekkee voilà diko diko ñaanal rek. Mamadou Ibra également am nañ ci ben élément bu ñu bëgg sétane ak kenn ku la jege ñu sétane ko di dikk. waaw Mamadou de comme ni ko waxee ci français passionné la dafa bëgg football. waaw bëgg sétane match yenn saa Sénégal bu dul joué e, dafa dëgg ticket. Euh, dem ran pour dem seetaani match yi équipe nationale Sénégal ak yooyu football daal bëgg na ko ci xolam fu mu amee euh, euh, remarqué naa passion bi moom ci loolu di seetaan match yi même bi ñu ne fi nekkoon bi ñu doon def commentaire match yi dina envoyé message intervenir ci commentaire yi waaye li mu gisul ci moom mosuma xoo gis mu joué football xëy na nag bëgg jawee dëkkan bu mu nekkoon xëy na joué football foofu waaye mosuma ko gis mu joué football waaye football boobu bëgg na ko commenter bëgg na ko suivre d'ailleurs gis nañu ay interview yu bëri euh, entraîneur national euh, Aliou Cissé daal na interviewé di waxtaan ak équipe nationale football daal passion am la waaye ma gis na mu ndugg terrain football euh, dafa daal sport bi jox na ko àqam loolu parce que à chaque fois bu ñu war def campagne daf ciy bàyyi xel parce que sport dam solo la surtout football Sénégal dañ ko bëgg mu nekk seen passion mu nekk li xamante ne lu dugg seen xol la donc yaakaar naa ne boo amee ci liggéey nag ci média dañ ci war a bàyyi xel bu baax a baax ci loolu te yaakaar naa ne bàyyi dañ ci xel bu baax a baax parce que équipe nationale buy joué day joué rôle bi nga xamante ne bu am important ci réew mi parce que équipe nationale de football bi rek dafa am stabilisateur social am stabilisateur économique te aussi business la aussi parce que équipe nationale buy joué aussi bu fekkee da nga groupe de presse dañ ci war a participer day joxe gannaaw visibilité jox ko te wax dëgg yàlla ñiy liggéey fii ci sport bi xare nañ ci loolu dañ ci def liggéey bu rafet Sénégal di suivre ñuy def Nous ngi dafay monter en puissance xamante di proposer ay ay concept yu am solo te sénégalais bàyyi na ci xel yaakaar naa football dafa am solo ci réew am solo ci de presse te entreprise de presse mënul dem te sport football amul. Mamadou dinañ def euh, match ak waa Marodien ah, <laughs> pour euh, <laughs> vérifier li Alassane wax. Alassane waa Kanel la man waa Bokki la comme ça mu ma woon ko ni ma mené. quoi non non mais il a raison c'est vrai que en tant que xale c'est vrai foowee naa bal football n'a l'élément que ma gardien encaissé hein wala ñu milieu ah, bon ma mais du ma qu'un euh, musuma nek un grand joueur quand même ça il faut le dire mais comme nous ko vraiment un je suis un passionné euh, jaral na vraiment lélé euh, dépenser pour dem par exemple coupe du monde 2018 dem na Russie ci ci ci la gis avant Kara Kara gis na ma jour boobu Kara je ne l'ai pas vu mais j'ai vu Aliou Cissé dans le car on s'est fait un signe de la main de Kara Mbodj gis na ma ba kérok mu ñëw bureau ba hein? euh ñëw jënd le livre que j'ai fait sur Nelson Mandela euh, des dizaines d'exemplaires wax dëgg yàlla aussi nekk lu touché donc vraiment je suis un passionné du du football euh, comme ni Alassane waxee ñun ñëpp bëgg suñu équipe nationale euh, moom ci aussi il faut le dire que Alassane C'est un, passionné aussi Les les man sax man xaw calmer tout quoi ah jéem man maay djema masla mais xam nga Alassane mom bon. Ah, quand il non non bu amé daf koy wax. quand il voit que l'équipe nationale euh, ne marche pas daf koy wax de la manière la plus crue je pense aussi que lolu soxla ko euh, c'est pas parce qu'on critique l'équipe qu'on est contre quelqu'un nous critiquer pour équipe bi améliorer wu fu critique amul effectivement avancement mënu fa je pense que il faudra critiquer quand il quand il le faut mais aussi supporter quand il le faut mais nous mobiliser wu ñun parce que loolu moo fi des parle en parlant de mobilisation di nga dem euh, Cameroun ah, en tout cas vraiment bëgg naa dem pour certains, quelques matchs de l'équipe nationale. dernière question qui est Omar Daf m'a posé malheureusement dafa nekk euh, ci yoonu Belgique euh, ma bàyyi pot mu poser ko Henri Camara message am mi vous noonu lire le ko ko saa waay tontu si ñu xool la bonne réponse d'accord donc euh, bon. micro bi donc c'est une longue histoire on s'est connus bien avant l'équipe nationale on devrait avoir 17 ans une question pour Henri bon où nous avons joué notre premier match ensemble. Néna, que certainement, tu ne vas pas t'en souvenir. C'est un match bu njëkk. seen match bu ah bind na réponse baa ngi fii nag. xam xam xam naa Medina si <laughs> ben, si benn euh, école là. mais Fatina naa fan la. fàtte école bi fall. la. en réalité école bi tout. Moi, mooy fii tribunal bu bees bi nekk Euh, mais école la woon xam ne foofu lañ waaw tabax euh, tribunal wetu Rebeuss. dëgg la kon trouvé na ko. kon na ko. alors Pod yow di nga dem euh, Cameroun wala doo dem. waaw naa dem mais damay bàyyi ba final bi suñu fi suñu qualifié final bi. yow Henry loolu laa waxoon dem <laughs> ñu perte. ah 2019. waaw <laughs> ah, mais balaa final rek. balaa ñuy jeexal am naa benn quelque cadeaux. damaa choisir nag pour ku ci nekk sa place Euh, Henri man suñ ko évoqué je pense plus euh, xëy à ak euh, stade match sur le beeg li nga xam ne mooy Sénégal Nigéria di match boo xam ne mu ngi des ci xel ñu bari commencé sa carrière ci Coupe d'Afrique première Coupe d'Afrique bi c'est vrai que 2002 le ñëpp nit di gën a mais li nga xam ne point de départ bi mooy bu 2000 bu 2000 bobu. Euh, match yi mayo yi ngeen don sol <laughs> ñu lijjantil leen ko ak suñu suñu benn partenaire bu ñuy remercier AMK service ah euh, fas yéene gungeeg ñun euh, ci li nga xamné moy kan bi li jëm ci kan bi yëpp également on va dire que dinañu fexé ba également jox téléspectateurs ay cadeaux yu am solo li nak moy kan mayo yi Sénégal don sol en 2000 euh Henri Camara numéro 7 bi nga xamné ne yow H7 gis nañ ko ba ci euh, casquette bek Henri merci beaucoup. c'est le vintage. <laughs> voilà voilà souvenir souvenir. merci. Euh, Mamadou. wow. yow dama lay 2002. Wow. 2002 le fameux maillot vintage toujours coq sportif avec un numéro spécial qui va évoquer certainement beaucoup de choses pour toi. 90.3. Ils fréquence irradio. Donc, euh, c'est ton, c'est ton cadeau. Ben, merci beaucoup. Une belle surprise en tout cas. 2002, de merveilleux souvenirs quoi. Merci Henri. Merci beaucoup. Jërëjëf. Euh. Hmm. Pape Omar Diop yow la ñuy euh, yow terminel. Euh, on va faire plus actuel. le numéro 5. gis nañ numéro 5 bi nga numéro Thiago Silva on va dire. <laughs> Ah, avec euh, le maillot de l'actuelle génération. donc on a comme ça trois trois belles générations de football. bi Ghana la. voilà mais gis naa Ghana meilleur joueur de la CAN. de la CAN ay parce que daaw bi ko benn seet comme si joueur la Ghana laa bëgg quoi mais <laughs> merci beaucoup alors j'ai un autre euh, souvenir bi ma lay euh, invité à la ko doon wax. Euh, Henri Camara 2002 maa def euh, terminal lycée Demba Diop bu Mbour Sénégal doon euh, regroupé wu foofu ci Sali. temps équipe nationale doon préparé coupe du monde bi foofu stage bi Bruno Metsu Yobu woon Fofu ci Saly maa ngi doon def terminal ñëpp nekk ci passion football ñu xëy benn jour rek dégg ne hôtel Lions yi ñu ngi benn hôtel Fofu Saly man ak sama yeneen ñaari waa classe yu bëggoon équipe nationale kenn ki dafa accès ci hôtel bi ñu lijjanti ko rek. dox les 7 kilomètres qui nous sépare de de qui sépare Mbour de Saly xëy na léegi sax amatul séparation boobu parce que ville yi euh, taxaloo nañ bi ñu yeggee defaroo solo tuuti dugg mais on était tellement euh, xam nga joueur booy tàmm di gis ci télé bi star yi et tout boo gisee ni rek dangay mel ni tu es subjugué euh, ñemewuñ jege kenn ci joueur yi à l'époque ñun ñu toog ci ruq bi rek ñemewuñ jege kenn. Henri mo ñew fekk ñu tok xamna lu yag parce ñom ñep dañ doon ñew jaar de jall ku nekk ak ki nga xam ak affaire yi Henri mo ñew fekk ñu ñu toog lu yag mo nañu yende xana ay photo ngeen ba ngeen ñew duxu tok seen duxu ne rek di ki ak affaire yooyu xëccu ñu man ak euh, sama wa classe yi ant job ak euh, Maguette euh, Maguette Ndoy ben photo bobu lañ ci am muy photo bi et euh, li yàlla di def des années plus tard euh, on a pu euh, ci le ligue bi man ma bokk ci ligue di commencer di ligue ci football. ñu am une première rencontre ci ci ci football. ak lu avec l'observateur. dafa mel ni dañu dañu jóge woon jouer benn match ci plage ci plage justement ah, ci plage justement ñu toog leen xaar et, euh, et voilà li yàlla di def on s'est rencontré une première fois mu am euh, beaucoup de trucs avec Saliou Gakou à l'Observateur je koy remercier d'ailleurs euh, depuis lors ñu am euh, kii bu bu rafet di ko remercier surtout ci et bi ci disponibilité parce que Henri dafa a joueur jour xam ne danaka wax loko yombul bok na ci joueurs yi gëna a effacé ñi nga ne da fi nek sax mais pour nga gis ko danaka ci médias yi c'est c'est c'est très difficile

17 millions yi fi ñi nek ci diaspora bi ñi nek ci euh, village ñi nek ci ville ñu and jëm fele ci Cameroun and fele ci Bafoussam def li nga xamné mom lañuy xaar ci ci Sénégal depuis lors du ñak ne xeyna euh, dina am une première fois ñuy ñaan yalla première fois bi nek bi euh bu ñu ñëwé ñu and ci euh, ak mbégte bu rëy donc jërëjëf mbokk téléspectateurs yeen ñi safo ITV amone euh, mbégte bu rëy bokk ak euh, plateau ak ñi nga xamné ñoy euh, ñom la laa plateau bi Henri Camara Mamoudou Ibra papu Mar Oumar Diop ci sen émission La Tanière di len jox rendez-vous yenen yu bari comme niñ koy tam di waxe rek le sport ne s'arrête jamais sur ITV di jajeufel ñi ñu gunge woon ci réalisation émission bi yëpp Babacar Saliou Dem Gorgui Diaw ak Silla ci photo bi di jajeufel Djeba di jaajëfal ñoom laay jaañ yi nga xam ne ñoom ñooy xaritu Henri yi nga xam ne ñoo ñu yombalal lii yëpp également di leen jox rendez-vous ci suñu yeneen ni plage ci wàllu sport ci suñu quotidien bu bees bi di bés bi ci site internet bi emedia point sn ci li nga xam ne mooy rajo bi i rajo 90 ci également li nga xam ne mooy seen télé di ITV te ngeen safoo ko ñu àndoon ak yéen defoon lu am solo ci Coupe d'Afrique 2019 fas yéene leen jox rendez-vous tamit ci Coupe d'Afrique 2021 ak ay surprise yu bare bare bare incha allah jaa ngeen jëf ba beneen yoon